matale bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu wa sallam waaye moom dafa wax li ko tax a jóg laysat liya al-yawma haajatun u'ammiluha si waxti kay ka xafal qalbi wal badan yow ma jànn yitte wala genn waaye roy la sama xol am na ku doon takk loolu la ko wax bàyyi am te xëy na xaj yi mi wax te day tabii bil xawli ak Sëriñ Tuubaa jox ko sa waaye roy ko nag roy ko roy yu nu biir ak roy yu nu biti ci sa wax ak ci sa jëf ba dajale mbooleem gënee la man lépp Serigne Touba nag dafa am lu ko taxoon a jóg moo di yéwénal jaam ñi seen adduna ak seen ëllëg ndax adduna bi ko suñu borom sàkkee mbër mu nekk wàcce na la fi defe naa jàkkaarloo bu nekk am na diggante mbërum yàlla mu nekk ak noon boobu di iblis waaye dafa amaat ñeenti noonu yu tudd bakkan ak bànneex ak àdduna seytaane noonu yooyu nag te leen dafa jafe te Sëriñ Tuubaa dafa dafa mucc ci ñeent yooyu yëpp boo doon laaj Iblis fi ne Sëriñ Tuubaa nit ñi ñu koy jàppale ñoo di ay noonam Sëriñ Tuubaa moom benn adversaire la te moo di Iblis rahmatullahi alayhi danga taxaw na suñu borom danaa taxaw ci si yoon wi gàllankoor jaam ni fa ñu jëm du ñu fa yàgg dina woote duñ ci si naa xëcc jàmm ci ku ma nangoo topp ma ma wammat ko teg ko ci yoonu jub jaaree ko ci rasulullah indi bayit la ko kon kooku rek laa man jàkkaar waaye bu dee yi ci des moom ndax li mu wax adduna mi gën a doy waar adduna suñ tubaab nee na mooy sàkkoo mucc ci man defe naa boo ci miimiñe ba muy lim ñeent fa nafs wal xalq wa cheytaanu xat farahu min xasdi durriya li dun yettaqat salaama kon adduna moom mooy sàkkoo mucc ci sëriñ tubaab bi nag daa waxoon moom ku ànd ak moom nooy mel xam nga tey man nga ne ku bëgg man nii ngay mel sëñ Tuubaa ne man tawajjaha ila rahmaani ku gëm jëm ci yàlla kese jarul gestu maa ngi yow ànd man tawajjaha ila rahmaani rahim maa sheytaani rajimi ku jëm ci yàlla boole ci seytaane nag tàggoo nañu kuréelu sëriñ Tuubaa nag ku ci tàbbi mucc nga ci seytaane ndax najayta man bi yata'allaqu maa min shayaatini fa suqra ismaa kon la ca nekkit mooy Serigne Touba dafa xare ba daanu da dàq te dis gor su mat ndax loolu moo ko waxaloon boppam ama lay baat boo xam ne buñ miin la Cheikh Issa Diagne la Serigne Touba ma sax ci njëriñ na ko Issa Diagne da nga seere na la ak jullit la da ko as gor du wor ab jullit du fen as la ab jullit la loo gis ci àdduna nag moom li mu daj moo nu may dinu am lépp noonu bi ñuy liggéeyal Serigne Touba dañ cee boole wari wata yori kër di dund dund bu neex moom bi muy liggéey rasulaay amati kër daa rab xusuur yi xallat wal ahlu an yi tafaaraxat li maddaxi alladi anhu lmadihu xasiyu sama kër yi gent na sama njaboot tàggoo nañ nii lu def ci moom it ba ba léegi-léegi nga dégg sax ku koy jéemal linkaar nii nu def ci moom jox ko suñu bopp jox ko suñuy wéyju jox suñu lépp loolu la def ci rasulaay juttu la wul yow ma bi ruuxi wax badan wa waladi wa walidayya fil alam nam def ca kee rek lañu ko yaakaar ñëpp def ci moom mu gënal leen seen alal gënal leen seen bakkan gënal leen seen seen bopp te lépp lu baax fu mën a nekk di daw ci sëñ bi rek la jëm si ndax suñ borom jox na ko lépp bu dee xam-xam la bu di jàng xam-xam yi lëm ci ñu bari mu nekk xëy bi ci ñoom yàlla tabal na ko ci biir ak dënam yàqudu ulumul xëy rabbi muallimi ila kalkali faydan yori lafza wal maana kon loolu bu dee leneen lu du diwuti la mel te ku ne dalaa dina leen ku kon bu ñu toogee ci ëtt boo xam ne ëtt borom daaru maati la te borom daaru bi mës ta joxañ dara mës ta joxañ kenn lu muy sëñ Tuubaa benn chaar mas na maa di wax ko yàlla na ko a ak leer mu benn chaar rek la am te mooy benn symbole mooy lu sëñ Tuubaa bëgg dana am te lu ma sant naa ko def loolu nag defe naa dara lu ni mel am moo di dogu moo di lépp joxe sa bopp sëñ Tuubaa bëgg dana am lu ma sant danaa ko def te jamono boo ko sëñ bi di bëgg ak di ko ko sant jamono bu jafe la jamono bu metti la borom Daaru Muxti taal na ni këram ba tàyyi mu nekk njabootu Sëriñ Tuubaa gi di bitti di fanaan cim sàq njabootu Sëriñ Tuubaa gi doy na ci gore ak baax ci moom nga déggee njabatu Sëriñ Tuubaa tawat Cheikh Ibrahima julli ay rakaam ñaan yàlla ay rongoñam di tuuru ci dënnam mu ne bu njabootu Serigne Touba gi naree dem naa tey la sama bakkar man Ibrahima bañ ko fekk wala seex Mouhamadou Mouhamadou Awa Balla mii ma ñàkk ko wala sama lay soxna Fadi sama ñàkk ko loolu buñ ca xoolee rek par rapport ñun suñu jamono sëñ bi sa bàyyi laa gëm ak ab sëriñ nangam ak borom daaru waxut sëñ Touba bu naree dem dane bu doomi sëñ Touba dem ma di laa xam naa ñàkk saa bakkar man ci am wattee ko doomi sëñ Touba ak sëñ mu daw balla mii na dem waaye na sëf na fa di sama day dem ngeen doomi sëñ Tuubaa dund xoola gi ngor loolu jaroon na adduna di ko waxtaane borom dëru des na daana si ko tegi fetal di ko get di ko xupp ak a tiital kenn déggul ñu ne da doon tool baa muy dëkk baa bëgg lu moom bokk na ci ñi mujj sañ 1912 la sañ sëñ Tuubaa mës dëkk wan ko ginnaaw Ceerno dëkkaat baa mu dëkkal fa kennam amul fu mu dëkk amul lu mu ne sëñ Tuubaa nekk maanaam borom dëru néewut sëñ bee ne sëñ Tuubaa ne moom rek la dàkk wallaahi moo tax mu am ci sëñ Tuubaa lu ne la Cheikh Abdou Khadir Mbacké doon wax Cheikh Abdou Samad sëñ Sohaybou waxalaat na ma ko ne Cheikh Abdou Khadir da toog naa mu ne suñu bàyyi Ceerno am na ci sëñ Tuubaa lu kenn amul man ci lu kenn mënul xam ci lu kenn xamul te loolu la ko mooy mooy gañaayu rek mës ta wàcc mës la noppalu damay wax ne buñ doon fàttaliku histoire borom Daarul Muxti di ko xool benn taalibe bu ne war na cee jàngal li Cheikh sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Kara wax ne Sëriñ Muntaxa dana ko borom daaru lañ ñu lañ ñu xolloo woon roy loo na ko xoolal coono borom Daaru Muxti ci àdduna lu ne daj na ko di lakk say kër ngay fanaan biti ñu di la xiixaan di la reetaan lu ne ñu di la ci suub nga boole ko ngor ak dëgër te moom mënees naa jànge ci moom kat ndax bi ko Sëñ Tuubaa di batale fanweeri at rek la fanweeri at na nga assumer ses responsabilités Sëñ Tuubaa dénkul Cerno dara manqué kenn du dégg ñu ne kaas ba tojoon ginnaawam ba bant ba réeroon ginnaaw ba dongo ba xàccoon ginnaaw ba lenn lu xew ginnaaw garab buñ fi mës a samp borom dëru suuxat na ko bi ñëwee muy ker gu yàqu mës a bëgg di lenn mësul di xool lenn moo tax dégg na ba tey al muridu sadiq nekk dégg na ko murid sadiq nga yaa matale la nga jaayante woon def nga kon nag ku am lu mel noonu la nga war a xam mooy adduna bi coow li bari na tappale yi bari na caaxaan yi bari na waaye nag lu yàgg-yàgg dëgg dëggay mujj sëñ Tuubaa moo ne woon alxaq xaqun wala yanqalibu albaatilu walbaatilu baatilun wala yanqalibu alxaq afa man kaana ala alxaqi wa in kaana waxda la yetihu aljamia wa man kaana ala albaatil wa in kaana maahu aljamaa la yatrukuunahu wa yibqaa waxda imma ajilan aw ajilan sëñ Tuubaa nee na lu adduna yàgg-yàgg dëggay doon dëgg te du soppi ko neen ku ne ci dëgg bu la ñëpp wanee ginnaaw bis dana ñëw ñëpp ñëw ànd ak yow adduna jaxasoo na te ñi bëgg a dagg rang gi te kenn du leen rang lii arrangé wu leen dama wax ne nit nag bu dee kenn du takk batsam kenn du ko bayali tool amutub dayire kenn du ko siyaare bàmmeelu bàyyam kenn du ko siyaare kenn xamalu ko tus boo jógee gis ku nu topp ak di ko liggéeyal day jàpp na yi ñëpp a ngi foon kenn risqué woon di Ahmadou Bamba ba tale fi car tey nag neex na ku ne ma ne yaata yu ma ginnaaw boo ma ne ñaari baat ña mbooloo di mu tax nga jaa jaawale <laughs> kon nag jërëjëf maa ngi daaneel sama kàddu li ma ciy yeggale mooy sëñ sëñ Ahmadou Kara Mbacké Noreyni man damaa wax ne benn wenn ñaas laa am muy man bambalox laa tey kenn sama bopp ba wax ko ne ko yaa moom waxuma ko kenn ku may ka ma jébbalu laa wax yaa moom sëñ Modou mii boo gisee bu ma wooyee buy guddi ma wuy si ko buy bëccëg muy si ku ne yaa xam na nga seetlu waxoon naa ko ne seen doyut maa ko waxaat seen doyut maanaam loo seen te yëggatoo ca màndu ca bi ma jaxasoog moom li ma jëkk remarqué ci moom ñaar neex na ma ci marqué na ci bi ci jiitu mooy sëñ Modou Kara xajoo na ñëpp mosuma jot téléphone baa may wax ak moom ba dégg mu tudd nit mosu am moom tudd nit ci safaan baa nga ñeme koo waxu safaan mosuma ko dégg bi ci toppit tabe jàpp na ne ku mu gis moo la war a dimbale jàpp na ne ku mu gis moo la war a taxaw jàpp na ne ku mu gisit moo la war a jox loolu nag ku ni mel boo wootee des na la wuy ndax nit ñi yàgg nañ ci terrain bi di ami déem a ki daqaare ki buy di ko wëral seen bopp ba am kenn tungu leen kenn jëppalewu leen ba nu nekk fa ñu ne ku leen woonu wuy si la jikko jëng leen wooye la lii muy dajale bu ko neexoon du ko def ndax ceernooy maamam ba addunay tukki asamaan si di fi ne jant bi fi ne barkeb sëñ Modou Kara bi di sax ndax sëñ Tuubaa ne barakati waasiatun wa baaqiya baqa umul ko di ba addunay tukki bu doomam génnee ñu du ko sukkal di ko raamal kon buy sonn dafa bëgg nit ñi jariñu waaye wóotewul ngir moom mu jariñu te defe naa nit mënu koo defal lu mu fekkul sëñ Tuubaa defal ko nit mënu koo yóbbu fu mu fekkul maamam Cheikh Ibrahima Fati borom daaru waxtu yóbbu ko bokkam yi mu bokkal Serigne Touba ñëpp bàyyi seen yitte yi bàyyi seen jataay bi yombul ci daarul waxtu ñu ñu wucc ko ko ma ko waral te koo wiital wax ak moom lam lay jëkka seere ci moom mooy ku baax la ku yaatu la koo xam ne lu ne joxe nga ko ci ay alal dama ko mas a wax ci Cheikh Abdou Samatum Serigne Soy bu man ma ne maa ngi koy samtam moo ma yóbbu mag am ku ne nanga mën a ko déedéet lii erreur mooy wax ci koo xam bu ne diw daal boo xamee ci moom baax neel baax na mais boo dundee nit xam ci moom lu baax it wax sëñ Modou Kara bu la wooyee na ku ne seet ñi ngay jaxasoon li ma xam mu man ko ci ay bay damay wax ne budul xasida yu siiw yi ñuy wax man mësta wax ba si xasida gu ma xam fu mu nekk bayit ma te man kat bu ñu doon conclure bayit ñeme na ma dem ndax aw ma yitte yi benn yitte wuti wu ma dépense daqe jiwu ma dara sama yitte mooy saa yu ma xëyee te yoruma mémoire bu ndaw doo un giga bay nangam ak nangam damay enregistré lu bari ci sëñ Touba mu ñor ma fu ma ko dégg mu jaral ma jóg mais saa yoo waxee ak moom téléphone mu wax la bayit wow lijjanti ko dana def yow sa problème mu dóor la weneen wu gën a kawe boo ko tuddee tudd sëñ Touba mu wax la loo xam ne da ngay sa bopp ci dimension bi nga jàppoo loolu na kon ku la ca woo man ne mosumaa wax baa mu woo ma ci lu dul ku tedd ki te defit turu sëñ bi mosuma dégg mu di ko tudd ku tedd rek lay wax wala ngaa daanu mu jëkk daanu yow loolu nag jafe na kon sëñ Modou li mu yéene lépp ñëw fii ci Darou Mouhty di taxawee nun day ay taalibe rek lañu te du ñu doon dara lu dul ay taalibe kon mbooloo yee yeeg àndandoo yeeg yëpp nan dàkk bëggu sëñ bi dàkk ngërëmul sëñ bi te di ko wut te kenn bañ a nax sa bopp ndax nax sa bopp mooy rek li sëñ Tuubaa daan wax ca laa bokk ca laa bokk te sa dara néew ca ba bisu pay kon nag maa ngi jéggulu sëñ Euh, Abdul Xuddus noo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay sëñ maam Thierno ak Cheikh Ousmane ak su kilifa yu baax yi fi nekk tey bi ñu ñëwee ci bëccëg sëñ Abo mii moom sëñ Fallou si Dieye montor bu rafet bi gis nga bi ma jox dañu nekk di waxtaan mu daamu te booba la mu doon seere da doon seere ci sëñ euh, Modou Kara keneen mën a seere keneen mën a seere te loolu li ko waral mooy lu mu def la lu ne ku ne laa xam mbakki mbakki moom lu ne laa xam ci nit ba mu des ñaar fit ak fulla moom xawma lu mbakke mbakke ñax waaye loolu bokk ci mu aw fit ak fulla te loolu ci seen maam lañ ko doon ne ndax sëriñ Basiiru moo wax sëñ Muntaxa na ko sëriñ Tuubaa comme fulla la ko def mu def la mel fi ne boo ne ko nikk mu ne la nikk la katiiw boo ne ko yalax mu loolu nag ku di bi loolu nga war a roy rek am fulla yi ku lay yëg nga yëg ko ku lay nga jàpp ne amul te loolu ñuy seere fii ñi fi nekk nii kenn ku ci nekk bu fekkee ne sëñ Moodu daana ko taxaw bu yàggit tey mënal na boppam kon bu nu dellu see taxaw di ko seere ci moom loolu am na lu ko wàll barki démb sëñ Cheikh Abdou moom Baye Cheikh Khadim yi dama toog rek man ni ma ñàkke fayda mu ñëw sama kër ëpp na maam Thierno mooy mooy moo jur baayam hmm. du yow yaa ni toll nañuy bàyyi xel loolu nit ñi nañuy bàyyi jaawale ay ngoos ba nga koy wax waxtu jaawale ngoos baaxul lu yëf yi jege-jege na xam ne ñeex lu mu tàng-tàng du taal bopp dëgg la ñeex mën naa tàng ba kun ko sotti nga lakk na mais ñeex du taal bopp ku dul sëñ Tuubaa waa këram gaa ñi ñeex mu tàng la man ngaa fuur man ngaa lakke mais buñ la sottee ci bopp ca suuf nga jëm foog sëñ Tuubaa koo teg ci xalu sawara woo jël teg ko ci bopp mu boole ñeex ak bopp lépp taal mooy sëñ Tuubaa waa kër te sëñ Tuubaa du nu bëgg ba def nu ay jasineer def waa këram yi ay pëpalin dëgg la loolu faw ñu bàyyi ko xel te sëñ Tuubaa nee na woon sama waa kër ñi ku leen nar a weer bala ñoo fenn nga wow wër ngeen wër leen ci kajoor ak bawal fu leen neex foo leen dégg ñu ne sëñ ma faal ñuy toog da naan bàyyi góora sëñ Mourao Balla la doon defal nangam mu ne yëkkati naa leen te du doo leen wàcc xanaa loolu sëñ Mourao Balla ko xool wëral ci Kajoor ak Bawol ba xam da nga dégg ñu ne bàyyi diw mii ko bañoon sëñ Touba la ko xeeboon sëti sëñ Touba la ganu mbàkki mbàkki foo ma sëñ da lay toroxal ba yàgg nga joxañ ne teraanga jee ca a torox moo fi gën a bon ngay